petit plat ak Marie Christine tey jii nag nga fas yéene indi lii di croissant boole kook tàndarma naka lañ koy defaree. Ah, croissant tàndarma doy na waar. Euh, doy na waar moos waxtu moo petit plat daal dinay jot dañuy pousse suñuy feuille daal di teg suñuy bic gàddu nag suñuy kudd seeti suñu chef cuisinier Babacar Gueye mu won ñu nan la ñuy defaree lii di croissant date. di leen présenter tey pâte à croissant comme weeru koor gi gis nañ ne vraiment ñëpp koy jëfandikoo ñëpp koy soxla daal et pâte bi lañuy ñuy préparer nii lii farine la farine pâtissière lii sel la lii améliorant la lii beurre la li levure fraîche ci pat bi lay dema lii sucre bu ñu nee pâte croissant dafa bëri ay recettes différentes recettes mais recette bii may defar day am sucre day am farine day am sel day am améliorant day am sucre day am beurre day am levure boulangère ñu koy wax levure fraîche léegi mélange pâte bi balaa ñuy def dara lii lépp composants yëpp ci biir la jëm quoi. mais composant yëpp dañ koy peser benn bu nekk sucre bi dañ koy peser poids am à part la améliorant bi dañ koy peser pois am à part sel bi dañ koy peser poids am à part farine bi dañ koy peser pois am à part bi dañ koy peser poids à part levure bi dañ koy peser poids am à part après bu ñu ko peser le tout mélanger en plus il faut toujours bu ñuy pétrir pâte bi muy pâte croissant pâte à briser pâte feuilletage pata pat lu mu mënti nekk pâtisserie dañu war a utiliser de l'eau fraîche ndox mu sedd croissant tàndarma quoi ñu ngi ko defaree avec la pâte à croissant moo nekk nii léegi tey dañ ko indi woon parce que weeru koor lañ nekk te tàndarma ñëpp dañ koy jëfandikoo ci weeru koor pii nag lañ koy defee ceci cela numéro téléphone bi di 865 33 865 14 58 di jaajëfal bu baax chef cuisinier bi di Babacar Gueye ak euh, élèves yooyu nekk fële ca école de formation ceci cela mu mel ni tey keps euh, dagan na ñu ndogoo lii di croissant date tàndarma li ma ci jaaxal matériel yi ñu koy defaree est-ce que ñun am nañu amuñu ko de nan la ñuy def est boo amulee yii yëpp naka ngay def ba waa gaar bi ñëpp ñoo am matériel euh, yu ni mel boo gisee sax materiel bii muy mélanger farine bi boo ko amulee mën nga utiliser sa benn boolu aluminium daal di utiliser sa fouet mhm. rek nga daal di defar sa pat bi sinon tamit euh, nu mu daggee pat bi boo mhm. amulee matériel boobu tamit mun nga utiliser sa sa paaka. ok mhm. kon daal euh, ku ne mën nga war nga koo mën a def. ku ne def du question matériel. ok <laughs> en tout cas man leneen li ma la bëgg laaj mooy dama gis ni euh, bi muy defar farine bi ndox bu sedd la ci def pourquoi ndox bu sedd bi. waa le plus souvent ñoom spécialiste yu jëm ci wàllu ay farine ak pâtisserie ñoom at ñoomin seen dañuy digal nit ñi bu ñuy defal farin at farine bu mu mënta doon ñuy utiliser ndox bu sedd. ngir farine bi bañ a mën di am ay euh, donj de sànq sax explication bi yéen a ngi dégg mu naan nañ ci def euh, ndox bu sedd bu jaree sax euh, ñu sotti ci ay glace ngir farine bi mën a mélangé wu moom bañ a am ay donj keps nuru na lu neex daal keps nuru na lu neex am na solo ndax tàndarma bi ni mu ko lëmasee chocolat bi ni mu ko lëmasee <laughs> <laughs> <laughs> en tout cas biir xel mi moom defe naa ne egg na si cela ba xampati ñaari xam ko mais garaawul après nañ man euh, utilisation pat bi man moo ma xaw a def tuuti ka kañ ngay dem ba xam ne pat bi kat pare na yem na ngir nga jëfandikoo ko mhm. justement astu li nga laaj euh, lu am solo la ndax pat bii ni ñu koy defaree c'est un peu spécial parce que du même jour ngay defar pat bi pat bi la veille nga koy defar daal di koy dugal ci frigo lépp rek ngir pat bi euh, daal di mën a baax da nga koy defal 24 heures avant daal di koy dugal ci frigo le lendemain bi soo ñëwee xëcc daggul mu élastique nga xam ne pat bi baax nga doogaan di ko mën a utiliser mais boo ko utiliser boo defaree pat bi le même jour bëgg defar croissant date bi le même jour loolu moom euh, yaakaar naa sa lekk nga croissant. léegi boo xëccee daggul da nga koy dugalaat ci congélateur ba nga voilà da nga koy dugalaat mais euh, d'après euh, kii di suñu chef cuisinier bi di Babacar Gueye bu xasee ba def 24 heures rek pat boobu tey daal di doo boo xëccee du du dagg as mbéb. Kebs nag euh, mu mel ni tey euh, uh-huh. tàndarma lañ leen indiloon ginnaaw mado ba mu fi indee woon nu ñuy conserver lii di tàndarma man nag ma ànd ak yéen wax leen li baax ci tàndarma uh-huh. ndax tàndarma baax na teg si am na solo lool ci jigéen yu wéru yi am na solo ci seen début de grossesse bu ñu nekkee ci digg grossesse bi waaye tamit bu ñu nekkee ci milieu grossesse bi ndax tàndarma dina leen musal ci euh, nausée matinale yi waaye tamit bu ñu demee bay accoucher dina leen musal la ci yenn douleur yi teg ci duñu sonn yenn sonn yu ñu daan sonn dina faciliter lii di euh, accouchement bi tàndarma tamit baax na ci jigéen ñi nga xam ne ñu ngi doogaa di euh, mucc ñu ngi doogaa di accoucher ndax dafay tax euh, ñuy am meew bu bëri te loole dina baax ci seen doom yi bu weesoo loolu nag tàndarma dina leen musal ci fatigue yenn fatigue yi ku koy faral di am mën nga di dee di utiliser tàndarma dina la musal tamit ci constipation waaye tamit lii tamit di indigestion ndax fibre yi mu am dina tax dina tax lépp looy lekk ñu koy mën di digérer normalement tàndarma dina la musal ci anémie dina leen musal ci maladie cardiovasculaire ci at bépp xeetu euh, cancer waaye nag am na spécialiste yu naan tàndarma baax na ci diabétique yi ndax sucre bi nekk ci tàndarma moo nekk ci fruit yi waaye am na spécialiste yoo xam ne tamit dañ koy tere ñi di diabétique yi ba tax na diabétique euh, balaa nga kaa lekk jax na nga laaj conseil sa médecin nga doogaa di ko euh, mën na lekk tàndarma jàpp nañ tamit dina wàññi lii di taux de cholestérol la bu nekk ci biir déretu nit képp si caam daal su ma la déggee tàndarma bëri na njëriñ lool bëri na njëriñ lool am na solo lool ba tax na ñu ngi koy digal nit ñi ñu koy lekk bu weesoo weeru koor bi ñu koy dogee dëgg la wante nag euh, suukar bi bari na lool kon euh, da wax ñaari version. Mhm. ne am na spécialiste yoo xam ne dañ koy digal ndax nee nañ sucre bi ci nekk bokkul. saf na suukar ma saf na suukar trop yenn spécialiste dañoo jàpp nag suukar boobu noonu euh, suukar bi nekk ci fruit yi suukar boobu moo nekk ci tàndarma bi. ñoom dañuy digal diabétique yi ñu lekk ko waaye am na ñoo xam ne ñoom nee nañ bu diabétique di faral di laal tàndarma ndax suukar boobu dafa ëpp trop mu mel ni daal am na benn werante bu nekk ci diggante bi moytu daal a gën a te kenn xamul ko ci am dëgg doy na waar woytoo gën a wóor ndax tàndar ma saf na suukar en tout cas ñi ngi remercier Babacar Gueye bu baax ak euh, ñoom Ali baaba ceci cela mhm. ndax itam li nga xam ne indi nañ ko ci wàllu euh, tàndarma tàndarma moom ku ne xam na ne ngëneel la ci weeru koor mhm. te ñëpp a koy lekk comme ni ñu ko waxee mu nekkoon seen petit plat ak Marie Christine mhm. ak Babacar Gueye euh, léegi nag li ñuy def mooy